Massamba Seye man maay coordonnateur handicap forme éduc bu Thiès maay président coopérative d'habitat des situation de handicap. association bi association handicapé la boo xamante ni yàlla dogal na nag mu groupe ay handicapé ay góor ak ay jigéen ba ci sax ñi nga xamante ni duñu ay handicapé ndax yàlla na ko yàlla yërëm ki nga xamante ni moom mooy la père fondateur muy président Omar Diop. ñu koy ñaanal yàlla fa mu nekk yàlla xare ko aljana njaboot gi ñu fi bàyyi yàlla teg ci loxo. dafa bi mu amee xalaatu taxawal association bi depuis quatre-vingt-dix dafa gisoon ni ñi nga xam ne dañuy dund ak laago dañuy bañ ku leen ber ndax tamit ci société bi lañ bokk. te léeg-léeg sax ñu am njariñ boo xamante ni bari na ci ñoo xamante nii bu leen gisee ñuy dem ñu leen woowee way laago te xañ na way laago yi mën nañ leen a ëpp njariñ ci société bi donc mu ne kon association bi muy defar du nekk association boo xamante ni dañ naan rek handicapé moteur yi wala sourds yi wala non-voyants yi déedéet moom day regroupé type handicapé yëpp ñoom ñoo am droit bokk ci association même ñi nga xamante ni du ñu ay handicapé bu fekkente ni noonu lañ leen mën a woowee ñuy les personnes valides ñoom tamit dañuy am droit bokk ci association bi moo tax tey boo ñëwee fii ñun ci sunu association non seulement da nga fiy fekk type d'handicap yëpp waaye da nga fiy fekk aussi euh, ñi nga xamante ni ay ay ay ay ay valide lañu waaw ci góor ak jigéen xale mag ak ndaw war nañu toll ci xam naa ëpp nañ daal euh, soixante personnes. waaw soixante personnes. waaw bu fekkente ni ñu ñi nga xam ne ñoo actif ñi nga xam ne boo leen woowee ñu ñëw weer bu dee ñu cotiser seen xaalis mat nañ soixante personnes. waaw seen xeet activité xeet xeex euh, suñu xeetu activité yi bokk na ci taxawu handicapé yi moo xam ci wàllum kër la ndax wax naa léegi ni man maay président coopérative bi nga xam ne yàlla def na bi ñu. bi ñu bi ñu xàmmilikoo ba nëgë ni mosuñu gis benn maire wala tey fenn foo xamante nii ñu ngi koy def ay kër ñu xalaat ci personnes handicapées yi moo tax bi ñu ñëwee dañoo xalaat ni li ñu war a def mooy fexe nag ba personnes handicapées yi am kër yu ñu dëkk looloo tax ñu taxawal coopérative bi bu ko defee képp koo xamante ni nii euh, soxal na la nga bindu ci yàlla dogal na sax nag coopérative boobu euh, depuis 2014 ak léegi ñu ngi koy doxal am na ci ñu bari ñoo ne am nañ seen ay terrain am na ñoo xam ne tamit euh, ñoo ngi ñoo ngi tabax loolu benn la ci activités yi ñuy def activités yeneen yi ci des fexe ba handicapé yi ñu ñu jàng parce que bu ñu waxee handicap formu éduque mooy formation éducation communication culture fexe ba handicapé des ci école yi mën a jàng parce que éducation pour tous la ñu wax personnes handicapées yi dañoo am droit jàng bu ko defee ñun lépp lu ñu man pour accompagner gouvernement bi bu ñu rendre accessibilité euh, école yi euh, loolu tamit suñu xeex la bokk. fexe tamit ba bunduxataal bi leen di bunduxataal moo xam ci seen wàllu sëy lay doon moo xam ci kër yi ñu dëkk la moo xam sax ci li leen wër la ci bërëbu liggéey ndax da nga gis handicapé boo xam ne dina jàng ba toll fenn fii war a wut liggéey mais handicapam day tax liggéey bu mu préféré moom donte mën na ko sax mais lef fait que mu nekk handicapé rek day tax léeg lekk yooyu di ndey jafe-jafe ci yooyu nag ñun lañu bëgg a taxaw wax dëgg yàlla def ci sunu kamtalaay kàttan ba nga xam ne handicapé yi dina dund dund bi gën a baax ci ñoom te du am benn jafe-jafe mm-hmm. waaw di ko naqarlu jërëjëf Babacar euh, am na solo ndax Sénégal partout li xew ñu ñëpp dégg nañ ko mooy benn xale bu jigéen boo xamante ni yàlla dogal na mu nekk ku wàññeeku euh, mënta dox mënta wax fa mu tëdd du fa jóg parce que may profité ci occasion bi di di di remercier Adamo parce que man ci moom laa jege sax xibaar bi moom laa seetaan laay fam mu wax ne am na benn xale bu jigéen bu nekk euh, ah Matam boo xamante ni dañ koo dañ koo violé mu nekk lu ñaaw nekk lu ñuy naqarlu nekk loo xamante ni àdduna bi Sénégal autorité yi ñëpp war nañoo booloo nekk benn ngir ki jëf-jëf jooju ñu jàpp ko waaye it nag bii bi mu ñëwee dafa dolleeku ci violence yi nga xam ni handicapé yi ñu ngi koy dund handicapé yi en général ñu ngi koy dund mais nag jigéen ñi daf cee rawati ndax koo xam ne demul dikkul ñu fekk ko fi mu tëdd du lu bees yàgg na am du du lii njëkkul tey kaa bi njëkkul tey mu ngi ci biir kër yi xañ na bii la ñu yëg te wax dëgg yàlla ñu ngi koy naqarlu ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy mettitlu ñu ngi wax suñu autorités yi nga xamante ni yàlla dafa def ñu ñëw ñu di leen félicité di leen ñaanal dañoo wax jub jubal jubbanti kon loolu képp koo xamante ne nii am nga ci kàttan am nga ci sañ-sañ ñu ngi lay ñaan kaab yi daal nañ ko régler ci façon boo xamante nii dinañ jàpp ñu def ñaaw ñaawteef boobu ba pare teg leen daan yi nga xamante nii moom la yoon moom la yoon santaane ndax tamit kape yaa ngi ci kër yi sonn nañ bu fekkente nii bu ñëpp demee bàyyi leen ci biir kër yi ñoom mënuñu daw mënuñu yuuxu saay-saay yi di ñëw di leen tëddee ba indi busi boobu tol noonu loolu nag jar na ñu faj ko bala ko yàlla fajal boppam parce que yàlla mën na ko faj te loolu bu boobaa musiba lay doon ci ñun ndax tey néew doole yi bu nguur yi taxawul nit ñi taxawuñ leen ba ñoom seen xol yooyu di tàng mu mu mu suppaliku mer ba yàlla taxawal ko boppam loolu musiba lay doon kon ñun ñëpp am nañ intérêt ci taxaw ginnaaw buñ ko condamné fermement ñu wax nag ni autorités yi surtout rawatina nguur gu bees gi nekk Sénégal nañu taxaw ci ñaaw ñaawteef yi ñuy def handicapé yi metti na dañ leen di fekk seen biir kër yi di leen tëddee dañ leen di fekk seen biir kër ñu nekk seen néegu sëy ñu di leen sonal di leen gaaruwaale dañuy jàng ak jàng ni mu méttee mais rawatina jàng handicapé bu ñu jàngee ba pare ngir ñu am liggéey rek loolu tamit day daal di indiwaat nekkaat beneen coono moo tax nañu dimbali nit ñi duñu wax sax ndimbal parce que droit la nit ku nekk am nga droit wu dem ak dikk nit moo moom yaramam moo moom boppam kenn amul droit def ci dara fekk du loolu daf koo neex rawatina nag ki nga xam ne dafa néew doole en tout cas acte boobu daal Euh, ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax a baax. waaw euh, dinañ ci am taxawaay bu soobee yàlla ndax bu weesoo li nga xamante ni dafa euh, dafa gum nañ ko incha allah fan yi di ñëw dinañ ci dajaloo xool nag lan lañ ci war a taxaw bu fekkente ni dafa jar ñu ñu ñu ñu ñu ñu porte press

boo xamante ni moom moo ko moom moo ëmb lépp loo xamante ni dafa jëm ci woy laago tib euh, xeetu way laago bu mu mën a doon mm-hmm. euh, monsieur Thiaré ma koy nuyuwaat bu baax ak équipe bi mu àndal ñoom ñoo ko jiite yu mel nii bu amee ñoom war nañ ci dégg seen wax war nañ leen ci dégg te ñoom ñoo war a jóg nag taxaw daan ni plus jamais ça lii waratu la am donc kon ñun en tant que ay responsable dinañ yëkkat suñu kàddu wax mais aussi ñu ngi interpeller suñu kilifa yi rawatina fii ci cees président euh, Youssou maa ngi koy nuyu bu baax di ko di ko ziar suñu doyen moom mooy jiite fédération bi ñoom tam nañ génn wax bu jaree handicap yëpp dajaloo comme ni ko ñeneen ñi di defee ndax tey jii gis nañ ni euh, euh, ñunu laal rek ñëpp dañu daal di jóg gis nga li xew ci dëkk bi ñun ñëpp gis nañ ko tey ci coow uh, ray bi ñu rey ki nangam nangam mais ñëpp ngi wax médias yi ñëpp a ngi wax mais nañ ci wax aussi na ci na ci journalistes yi wax na ci liveurs yi wax na ci na na ci euh, tik euh, tiktokeurs yi na ñëpp wax parce que tamit lii dafa jar a wax lii daal vraiment ñu ngi koy déplorer ñu ngi koy jooy ñu ngi koy naqarlu ñu ngi yuuxu wallu tamit ñaan wa askanu Sénégal ñëpp wàlluñu ndax du lu bees te xam naa ni buñ taxawul tamit du arrêté. la parents yi dañu war a bàyyi xel bu baax a baax a baax seen doom yi ndax tey ji en général ni ñuy def ñooñu te boo xoolee heure bi ñu leen koy def mooy heure bi nga xam ne peut-être xale yi dem nañ jàngi papa ji dem na liggéey xañ na yaay ji dem na marché bu fekkente ni heure yoor yoor yooyu nga xam ne peut-être kër yi dina xaw a calme ñëpp duñ fa nekk ci la saay-saay yu mel noonu di kii ba pare ñuy xool entourage yi gis nga bëri na loo xamante ni moo ngi xew bu ñu dem ci biti di ko seeti nañ xool entourage yi comme ni nga ko waxee waajur yi nañu bàyyi xel ci seen doom yi mais rawatina doom yi nga xamante ni dañuy dund ak laago surtout ñu jigéen ñi ñi nga xam ni duñu dem nañu bàyyi xel ci ñoom ndax tonton saay-saay yi ñoo ngi ci ñoo ñoo ngi ci kër yi waaw di la sant bu baax rek di la gërëm vraiment di di la kontaane di di di ñaan yàlla euh, Thiès 24 euh, euh, jëm ca kanam euh, di di di lancer message bi ñuy lancer rek mooy comme ni ma ko waxee sànq ñi nga xam ni ñoom ñooy autorité nekk fii ci dëkk bi association handicapé yi nekk fi wax dëgg yàlla monsieur le maire Babacar Diop am na lu mu ci tàmbali ndax am na situation yu am solo yoo xamante ni defal na ko association yi loolu moom moo ñuy permettre ñuy mat di dem bu ñu waree bind mën a bind bu ñu waree déposer ci lettre mën a am essence wala lu ñu lu taxi bu ñu jël pour déposé lettre yi léeg nga am ay membre yoo xam ne xañ na ñoo ngi ci hôpital euh, hôpital yi am problème mu ordonnance nangam nangam yooyu na ci autorité yi bàyyi xel na ñu jàppale association handicapé yi ndax ci la ñu bokk te liggéey bu am am solo tey jii ñun li ñuy li ñuy def nii autorité lañ koy defal ndax ñoom ñoo war a taxaw pour ñëpp mën a mën a yem mais ginnaaw nag dañoo toll ci jamono boo xam ne luy olof di wax yuuxul ma yuuxul ma yuuxul sa bopp moo gën a wóor ba jóg taxaw ngir yuuxul suñu bopp nañu autorités yi gën a bàyyi xel gën ñoo jox këdd bi tamit te xam ne lii ñuy def ñoom lañ koy defal te li ñuy def lu am solo la maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëmaat bu baax waa forme éduc di gërëm handicapé yëpp salaamaaleykum wa rahmatullah